tiitaange gi am na de ndax daañ ko yóbbu seeraa sam déet xam nga nag loolu lu ko indi ma liiral la chapeau bi liiral ko également internautes yi ñuy seetaan Pape day fàttali ci atum 2019 mu ni Karim Wade ak Khalifa Sall mhm. ñoo fi nekkoon rivaux Macky Sall yi gën a sérieux mhm. ci fàttali ci 2019 mhm. mu ne waaye ay condamnation judiciaire dafa dal ci seen kaw ba tax ñu recalé woon leen ci élection présidentielle wu at moomu conseil constitutionnel ma nga woon ca biir mu ne nag spectre de la condamna euh, condamnabilité bi mu ni euh, dafa planer de nouveau mhm. ci ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ak mbiri Sweet Beauté bii nga xam ne moo jur coow li mhm. mu ne loolu nag euh, au lendemain de du procès bi nga xamante ne jàpp nañu ne Ousmane Sonko war na taxaw ci kanamu chambre criminelle mhm. waaw ci loolu nag moom la duppee abattoir politique abattoir bi da koy expliquer ni amoon na fi ay candidats yoo xamante ne nii ñoo nekkoon ay candidats yu sérieux war a jàkkaarloo ak Macky Sall. muy xalifa Sall ak Karim Wade mu am ay condamnation ñu tëj leen ca kaso ba xam nga ñooñu bokkatuñu ko. Mm-hmm. <clears throat> mu ne itam li ñuy dund nii ak procès Sweet Beauté bi nga xamante ne ma dafa war a taxaw ca chambre criminelle dafa mel nii daal Ousmane Sonko itam. Mm-hmm. la daloon Karim Wade ak la daloon euh, ki nga xam ne mooy xalifa Sall bu moyul tuuti moo koy dal. Mm-hmm. Pape mu ni mbir mi daal boo ko dee xool seeraas lay nuru. Hmm. xam nga seeraas xam nga seeraas. foofu kay dañuy kii rek. ah dañuy tël rek. subhanallah ren mu ni seeraas nag. où le leader Pastef risque d'être juridiquement condamné et politiquement égorgé. yaa ngi dégg tubaab bi bu baax. Mm-hmm. politiquement condamné juridiquement condamné. Mm-hmm. mooy mu dem ci yoon ñu àtte ko. politiquement égorgé ñu rendi ko xatit ci lu jëm ci wàllu politique lépp loo xamante ne maanaam lu mu yéene woon la wala lu mu façon yéene mu bañ caa yegg hmm. Pape mooy wax ba tey de waaw mu ne d'où son appel à la résistance euh, bi nga xam ne mooy place euh, Tahrir hmm. xam nga dafa woote résistance moom mu ne pardon Yékini déet waay nga ne <laughs> Pape yow est-ce que def tey mu ne lan mu ni pardon ah, xaw ma nag koy Yékini nag pardon Yékini de Kër Massar léegi leer na. ah d' accord. ma yeggali wala c'est mu ni toutefois. Euh. un ancien magistrat parquetier interrogé par le témoin journal le témoin moo ko séq ak moom ak moom waxtaan. mu ne dafay expliquer ne chambre criminelle mu ni sori na lool abattoir. Mhm. waaye nag nekk na benn enclos. enclos du mooy fi ñuy denc. waaw xar yeeg ñoom seen. mu ni ou tout animal innocent. Mm-hmm. yaa ngi dégg peut mm-hmm. échapper au égorgeur voire être acquitté mooy nga dem chambre criminelle. Mm-hmm. firndewul daal ni maanaam daañu la àtte tëj la yàq say kayit. Mm. mais loolu nag dafa fekk mu nekk nga nekk animal innocent. ñu jàpp ne yow ci biir enclos bi daal lañ la cay tuumaal ci biir gétt gi yow bokkuloo ci defoo ko laaloo ko taqewoo ci. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. mu ni nag pour jeexal benn ancien magistrat ci prend sans doute les Sénégalais pour de grands enfants magistrat bii daal ay xale yu ndaw daal la ñu jàppee di jouer ak ñun yópp laa ak yooyoo. paa ba wax loolu tënk lii daal. paa ba wax loolu ci article am ah mu ngi nii de yaa ma ko jox. article baa ngi nii ma ko waroon a jox sax nag mbay anta sax nag mu xool ba xam lu mu ko affiché. dafa mel ni sax mbay mbay am na lu mu wane sànq ci témoin da ah, mbay ndaanaan la de. mbay nag mbay ndaanaan la am na yoo xamante ne dëgg-dëgg kenn mënu ko koo nëbb ci réew mi. yow li Pape Ndiaye wax loo ci xalaat. ah xam nga man lu ma neexoon tey. Hmm. <laughs> ma toog sa place boobu nga toog ci sa bos. Pape Ndiaye li mu wax. part de vérité bi mooy. buñ dee seetlu dëgg-dëgg situation politique bi ni muy tëddee mënuñu koo jox toor li tax mënuñu koo jox toor mooy effectivement ci 2019 kenn mënul woon a weddi ne Khalifa Sall amoon na taxawaay quand boo xam ne positionnement bu baax ci lu jëm ci wàllu présidentiel yi. Karim Wade amaana également candidat la woon boo xam ne dafa jàkkarloo woon ak Macky Sall mais man euh, je trouve que xëy na Karim sax ak histoire beeg passé bi papam amoon. Mhm. Euh, pour man dama jàpp ni nit ñi ñi foogoon sax du loolu. ci mhm. wàllum doole ci wàllum positionnement euh, pour nekk président ci yooyu les périodes man bokkoon naa ci ñi gëmoon ne. Euh, l'histoire de son papa malheureusement dafa entaché woon un peu li nga xam ne moo nekkoon wàllu candidature am ci présidentielle yi mais Khalifa Sall quand euh, ci fàttali euh, ci yooyu les joutes yi nga xamante ne passé woon nañu ko ba ci gox gi mu dëkkoon Grand Yoff foofu dafa mm-hmm. amoon ndam lu kawe. Mm-hmm. donc amoon na positionnement boo xamante ne ci wàllu éthique également ñi ñi joxoon nañu ko cër bu war a mën a tax euh, amoon na taxawaay bu baax pour nekk président. Mm-hmm. waaye ce qui s'est passé mooy mënuñu ko weddi xalifa Sall a été condamné ñu tëj ko ci kaso bi. Karim Wade également a été condamné ñu tëj ko ci kaso bi. léegi nag bu ñu dee dund bay jëm deux mille vingt trois ñun euh, deux mille vingt quatre ñun toll ci atum deux mille vingt mu am candidat boo xamante ne bien avant sax ñu yegg si ci yooyu yëpp affiché wu na euh, bien avant muy déclaré wu nit ñi njortoon nañu bàyyi woon nañu xel euh, ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ñu yegg si ba ni mu am procès moom itam boo xamante ne mu ngi tegu ci noddam. Mm-hmm. mu war a dem ba chambre criminelle ñii laaj naan bu mu dem ndax bu demee mën nañoo yàq. ay casier judiciaire am ak ba tax du mën a nekk président ñii mm-hmm. naan bu demee daañu ko condamné lu tax ñu koy condamné parce que dañu jàpp ne y a eu assez de preuves en tout cas yu génn ci biti yu ñi yu ñëpp jot yoo xamante ne jàpp nañu ne euh, thèse complot bi amaana kon bu dee am na dëgg la ndax audio yi wane nañu ko euh, certificat médical bi ak yeneen ak yeneen i mbir yoo xamante ne sorti capitaine Touré. li mm-hmm. nga xam ne moo yoroon enquête bi lu nit daal seetlu te suivre de près ci li nga xamante ne moom mooy dossier Ousmane Sonko bi ñit ñi jàpp ne xëy na amaana moom itam dañ ko bëgg faagaagal teg ko benn côté mm. waa loolu yëpp bu dee am na nag li muy firi mooy daf am benn benn boo xam ne moo nekk ci nguur gi te bëggul beneen opposant bu sérieux bu taxaw ci ay wetam est-ce que laaj bi loolu la en tout cas question bu ñëpp di posé la mais ñi ñi am nañu njoxtu réellement euh, que ne volonté bi nekk ci ginnaaw coow lii yëpp mooy que Ousmane Sonko bañ a nekk euh, candidat ci 2024. Mhm. parce que jàpp nañu ne ak mbooloo bi ma gis mu diri ko Kër ma Massar barki dem ba tax. am mhm. na tuddee ko Yékini. Mhm. te Yékini nag ku ne xam na nag ci histoire de lutte sénégalaise am na lu bëree bëri loo xamante ne def na ko ci ba tey te ndaw defaguñ ko. ci wàllum palmarès ci wàllum euh, maanaam euh, carrure bi nga xamante ne am na ko en tant que. 15 ans 15 ans de règne tubaarfakàlla macha allah euh, donc Yékini ci ba muy samp ndëndëm dëgg-dëgg di nekk Yékini. Mhm. boobu mbër ñemew ko woon a songu. ba mhm. koy xalaata daan. yaa ngi dégg. fii ku ne nekk na fi nag roi des arènes pare jël couronne bi jox ko keneen. Mhm. loolu nag lim lay firndeel mooy yàlla tegul kenn. muy nekk buur abadan daay man dapat ku dul moom buur bi azza wa jalla keneen ku dul moom ku ko fi jéemit di nga xam ne l'éternité appartient à Dieu l'éternité n'appartient pas à l'humain donc jàngat la goo xamante ne doy na waar léegi nag waxtaan bi mu seq ak magistrat bi nga xam ne dafa téye xale yi ay yooyoo di ñu foowee daal di ñu nabb nabbee waxtaan boobu sekk bëgg naa koo liir bëgg naa ko liir ba gëstu ko ba xam moom ak témoin lan nag lan la ñu waxtaanee ba Pape Ndiaye mën a am position bi mu taxawee nii ak li xew ci situation politique mu mën ko tëkkale ak lay xew ca Seras nga xam ne lay xew ca Seras doy na waar. je dis j'adore quand tu résumes. tënk xam nga tënk xam lan moo la tënk. Hmm. tënk mooy mooy mooy mooy maanaam ne la lii fi ne. Hmm. ci gàttal. Hmm. lii fi ne. nga xam ni looloo fi ne. daal di xam ni nga taxawee. information nit ba xëyee dafa am info ba xëyee suba yeewu def li moo def nekk ci ay mbir boppam ba pare faw mu xool bala moo génn fa mu jëm. ak na mu faa demee lan moo fa xew. mooy dëkk bi. Mhm. loolu moo la li noo dundee. ma mhm. euh, maa ngi daan koor sàmb. Mm. koor sàmb euh, benn la. koor sàmb ah, koor sàmb ah, comme moom dafa jógte yenn yi koor sàmb koor mi fi newul mi jógte yenn yi koor sàmb koor mi am benn taxawaay bi maanaam koor sàmb moom la war a yóbbu seeraas de koor ci jubadi yàlla na toog ko ci antenne bi mu lay bay jeexal di daaneel yàlla na nattoo ko mu leeral la mu nar a def ne day nelaw kon dafa xëy yaram bi daal am na mu téye mu bañ daal di lank mu ut lay waaye nag koor dafa am na ko traumatisé démb mm. Mm. te li ko traumatisé mm. mën na tax ma xaw a justifier tuuti lan la loolu loolu la